Sénégalais. Parce que Ladjo, il a représenté ici le Sénégal à des sphères beaucoup plus importantes que nous qui gérer le pays li ñu mësoon a yor mais le président de la République. Mm Djamaye Bassirou Diomaye a fi mu am kër moo gën a a fi exactement te a été ministre de la République. Il a gëna bakane. tay Ousmane Sonko kër gi mu am fi kër góor gi. kër gor gi. mais moi, gëna a kër gi la job am. Hmm. si bo jëlé foncier bi rek sans waxuma la le bâtiment. Hmm. mais on peut pas avoir une un ancien ministre de la République c'est-à-dire il faut ñu sagal suñu bop quand même hmm. parce que tey ndaat bu nek journaliste ak ndat bu nekkuloon journaliste du ben du ben exactement du mhm. c'est ça la réalité mhm. Lat nek na ministre de la République bok ci fédération sénégalaise de football liguey ay année bala muy am limu am mais ñu xey ñu saisir sa maison saisir ses comptes nangu alalam mais teguñu ñuko fenn lolou dañ koy condamner dañ koy condamnés jusqu'à la dernière énergie parce que du dëgg du yoon la même bu defee li mu war li mu bu defee lu mu def on a dit que ni il a détourné mm-hmm. mais détournement bi mais moi je pense que ni jusqu'à présent rien n'est clair dara firndeelu dara firndeelul ni la job dañ ko dafa détourné mm-hmm. nañu teg affaire yi ñun dañoo ne réduction des comptes mais ok on est d'accord mm-hmm. dañu war a réduire réduction des comptes. les plaires ku ñu le on est d'accord sur ça. Mhm. mais Anne là, job entendre nañ ko arrêté nañ ko. ko. nous mhm. ni nous saisir nañu. Mhm. ko là lañ doon xaar moi nous juger la job surtout aussi. juger parce que jusqu'à présent c'est innocent. Mhm. ah et tous les Sénégalais de bonne volonté dañuy jàpp ni il est innocent mhm. man Lat Diop aujourd'hui il est avec Amadou Ba mhm. il n'est avec il n'est pas avec nous mais dëgg dëgg la waaw ah. dañ ko wara até, suñ ko até nak ba lepp lèr, laa bu boba, bu ñu téye ay alalam ñu téye ko mais pour le moment vraiment man damay wax ni dama koy condamné waaw ah. maintenant nak, comme ni ko ñëpp waxee dëkk bi insécurité bi moom romb na foo ko natt. jéggi na dayo en tout ah. cas. Mhm. man defe noon naa ni duo laa bi ñu ñëwee jël réew mi mais lu bëri dina changer. mais mhm. tey la gën a empiré wu. c'est ça la réalité. Mhm. te Sénégal nag dafa bëri ay nit yoo xamante ni ñoom bugguñu kuy dox ci dëgg da ngay dox ci caaxaan di fen di wuruj ñu ànd ak mais tey boo bu fekkee nitu rek nga bëgg Sénégal xam nga ni Sénégal ni mu nekk di ko ah. mhm. donc damay condamné encore une fois liñ def et di exiger aussi pour nous ñu ñu nous bàyyi nous, c'est un sénégalais fii la dëkk. Mhm. ah tey buñ ko libéré yow mais li ñuy def c'est politique parce que nous xam nañ la job fi mu dëkk la jeunesse bi Andal, mom la maire yi andal la yi parce que def na fi lo xamante bu demee élection day nous ne nañ ko japp ko jant bi. Mhm. ko toroxal ni la pour jëma électorat mais mhm. le 17 novembre ils vont perdre ces élections là lool mom amul sax xaaral mhm. donc vraiment loolu laa amoon li may wax ci kaaw Lat mhm. mais di dellu si waat di naqarlu mhm. li nga xam ni moo am démb mhm. gis un sénégalais jabaram nekk en état mu ànd ak moom di doxantu parce que dañ koy exiger à toutes les femmes enceintes que ñuy dox parce que dafa baax si ñoom pour seen accouchement mën a facile mais ay ay ay ay samba booy ñëw bu ko néewal doole nous faisons sen kaw ko entendre. non non. parce que self défense la def. su sommes sax ne s'est pas défendu tay mën na am bakanam lañ fay jël. wala ñu ray jabaram. man Nous HLM Padois am naa benn xarit ndeysaan loolu bi mu ça fait plus de dix ans maintenant. Mm-hmm. moom it ko dal. Mm-hmm. jabaram da andal doon doxantu ma ma koy ma koy ñaanal fa mu nekk yàlla mu gën fa mu jóge waaw mm-hmm. ah, muy ma Diop nga xam da doon ànd ak jabaram jabaram nekk en état nekk si dernier mois am ñuy doxantu ay samba booy dab ko xeex ak moom jam ko paaka mu sedd foofu ca kaw taliba mm-hmm. kooku tey man bi ma déggee bi ma gisee information bi automatiquement sama xel ci moom la dem mm-hmm. ma julli fajar ñaanal ko yàlla yërëm ko xaare ko àjjana. amiin vraiment ce pays là li fi nekk di xew.